ñu doon ko xaar ngir mu am ay tegtal yu mu joxe gannaaw lël bi nga xam ne ni moom la ñu jagleel yoon commission réforme de la justice am ay recommandations yu bëre yi nga xam ne ni moom la jaarale ci ñaari sous commission yi bu si njëkk def ay recommandations ci nu yoon war a doxee ci mim réew. ces recommandations portent sur. digle yi fi jëpp yëpp mu ngi jëm ci ñu wàññi pouvoir yi nga xam ni procureur de la république am na ko. gën a dooleel juge d'instruction waaye itam ñu jëmmal ab juge des libertés et de la détention des juges des libertés et de la détention beneen sous commission bu ci des def ay recommandation ci acteurs justice yi instauration au sein du conseil supérieur dañoo bëgg ñu amal appel à candidature ci yenn postes yi nga xam ni am na ci conseil supérieur de la magistrature gën leen a féexal ci wàllum koppar waaye itam gën a dëgëral doole. des pouvoirs du conseil supérieur de la magistrature. gannaaw bi nga xam ne def nañu liggéey commission bi mu am ay poñ yu ñu jot a déggoo waaye it am na yeneen poñ yi nga xam ne ni ba tey ña bokk ci commission bi amuñu ci benn gis-gis. il que là du consensus s'est dégagé li ñu mën a jàpp moo di nii déggoo am na ci ñaari ponk bi ci njëkk moo di tëggaat wàllum yoon beneen bi moo di yoon gën a jege askan wi waaye am na ay ponk yoo xam ni daanaka réeroo am na ci mu di teewaayu président de la république ak ministre de la justice ci conseil supérieur de la magistrature waaye itam ubbite conseil bi yeneen corps mën caa teew. l'ouverture de ce conseil à gannaaw bi nga xam ne ni jot nañoo seet ni yoon di doxee ji biim réew ñu tànn ci lu baax ba pare def ay recommandations ngir ñu gën a mën a ñoŋal lu ci des te yooyu les recommandations daañu ko jëbbal gannaaw bu ñu defee rapport final bi njiitu réew mu Sénégal.